won fi jam fekkat fi jam kon nak salam mbok ak xarit ni ci senegal TV dal leen jam ci sen revue de presse quotidienne ndax bu ngeen xam keur yu ne kay lan leen feussal tay ji kon nak bismillah ñu àndandoo xuus ci biir jàppazon actualité aduna adduna njéeme la tudd sant ba bo jeme bo deme ba tele da ngay ba motax ki di Farba neena wa dik so len ma de laaj ma bana tontu xana di ngeen ma ba yéen len l'observateur ñu dëkk ci Farba Senghor bi nga xamni ni nañ ko fi nga xam dëkk division des investigations criminelles ci wallo traque des biens mal acquis manam alal jo xam dafa teggu ci wala xel di tey ci nim ko amé Farba Senghor min du fa yag tey nañ ko fa ay waxtu yu bari ba mu génnee yëkkati loxo daal di bakku néna nak ñi di enquêteur yi dañ ma doon xool ma di leen xool tontuwuma leen ci liñ ma doon laaj ndaxte haute cour de justice moo ma war a àtte liñ may tuumaal ba ma ko defee boobu ministre laa nekkoon ca loolu def na lu tolloog fukki at moo taxit dinu jug daal di tàggatoo daal di dem noppi naa ba bis bu ma haute cour de justice woowee dinaa ñëw lu luñ ma laaj ma tontu leen. lëngoo neex na lool waaye képp koo bàyyi mu daal di wéeki waggam xool leen yéen kaay bii nu naan le populaire mu dikk ci ki nga xam ni Abdoulaye balde mi nga xam ni way juróom bu jigéen dafa génnoon àdduna moom nag ay ñoñom ci wàllu politique bi demoon na nag di ko jàlle ji fi nga xam mooy këram bi nekk Almadi ba mu yëkkatee ay kàddu wax na ci sa Seck ak ki nga xam moo di Macky Sall Abdoulaye Baldé ni sa Seck faris la garmi la dafa nekk nit koo xamante ni bu lay jàppale da lay jàppale ba jeex tàkk ku la bëgg a doole mu summe ko wan leen yaramu nenam waaye koo xamante ni nag Idrissa sekk mi ngi lay xeex dala koy xeex di la ko won di la xool ci biir bët di la ko won ba jàkkaarloo nga xam ni kii amul lu muy ragal waaye kii di Macky Sall nit ku doy waar la kenn mënul xam ndax sa xarit la kenn mënul xam ndax sam noon la ba tax na Abdoulaye Baldé ñoo ngi jot ni ginnaaw bi nu ko jaalee waa PDS ak Papa Diop nee nan 14. nee na 2014 élection yi di ñëw soo moytuwul moom ak Idriss sekk ñooy ànd nag daal di xëccoo li nga xam moo di collectivité locale yi sa xel di dàq ngay daw dafa melni fo laqatu daf lay daal jafé jafe traque des biens mal acquis Mimi dame justice ci yéen kay bii ñu naan las woonoon ko nak diko deglu déglu nga xam ñoo di député yi nga xam dañu bok ci Benno bok Yaakaar dañu bëggoon a xam dossier bi fa la toll Mimi Touré nee na leen benn ci des ñu daal jël lepp daal koy khatim daal koy móol ci téré jébal ko li nga xam modi parquet bi nga xam moom war a yëngatu ci enquête yooyu ca procureur spécial bi daal di koy jiite ci wàllu woo tamit laaj nañ ko li nga xam moo di médiation penal am ñu jot a dugal un milliard ngir bañ dem fi nga xam moo di kaso nee nañ ko nag dafa mel ni nguur gi ne woon na bàyyi na loolu lan moo tax ngeen dellu siwaat ci Mimi Touré ne loolu boo gisee ñu def ko dafa nekk mbir moo xamante ni dañ koy xumtoo ci biir néeg tëju bañ a nag daal di xaw ñi nga xamante ni dañu daal di luubal xaalis bu dee pare nañ xaalis joxe ko ñu nangu xaalis boobu nag bàyyi leen ñu dem waaye ku ci nanguwul génn xaalis li wér jëflante mooy dana la naan nit nii la ràcc ci kaso bi ca boobaa doo ci mën dara. bato dem bato costé mu mel ni ci yéen kaay bii ñu naan le populaire nee nañ ki nga xam moo le commissaire bi nga xam moo yilifoon police bi takk deri fii ci Sénégal. laata ñuy décoder li code de mbeng di ko fa mettez metti président Macky Sall ministre de l'intérieur ñu di wutu Ibrahim Diallo a wax waaye mel ci ndomba ni indi ñu indi Abdoulaye que commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle loolu lañ doon la 2002 indi commissaire Assane Muiriftakaderi. fekk nag ci biir takk der yi am na ñoo xam ne ñoo ko ëpp grade ëpp ko ndombay tànk ca loolu malaise lay indi ci biir police bi moo tax jamono yi ko Mbengue dem na Abdoulaye Niang ñëw na nag ca nekk na koo xam ni gars yi wóolu nañ ko ca ñu ngi xaar naka la tax war a taxawee nag ci kaaraange réew mi. ñu jàppaat ci seen loxo delluwaat ba ca biir kaso ba waaye bii nag du rëbës mais camp pénal lan koy wooy yéen kaay bi ñu naan l' observateur moo du daal di xamal ni. kii nga xam nii moo di Aziz Samb amaloon na doxantu foofu nga xam moo di camp fa nu téye ñi nga xam ñoo di prisonnier caabi féete leen ginnaaw ñu yóbbu woon fa nag ay dund yóbbu fa ay mbir yu bari yoo xam dañ leen si doon jàppale waaye la ca doy waar moo di mbër mi ñu woowee guy gi teewoon na foofu kii di guy gi nee na moom mës na def kaso waaye nag du woon sàcc du woon jaaykatu drogue waaye dafa am ku mu jotaleen kooku tooñ ko nag mu daa di koy rokkos ay baay daam dóor ko ay sàll yu tàng jër ba waa ji ñaari bënum daal di wekkeeku ñu tëj ko ñaari weeru kaso guy gi loolu bi mu koy nettali nag da doon jooy jooy metti lool ba ki nga xamante ni moo di Ngoone Njaay géwél ci xam ko ci taasu daal di koy feelu ci jooy yi ni ko nag nii la ma yàlla bindee ah dafa mel ni jigéen bu jekk laa waaye nag sama xol bi dafa rafet ba nga xam ni saa yoo jooyee rek ma jooy ñi nga xam ni ay niir yu lëndëm ñoo leen daal di tiim danga leen di fekk ci kaso bi nga xam mooy Cap Manuel kooku mooy Cheikh mi Seck ci yéene kaay bii nu naan las ñu daal di dëkk ci ay mbiram Mom nak dem na fi nga xam di cour d'appel daal di fay dugal këyit mu ñu liberté provisoire Madame bàyyi néggandiku Qui di Cheikh Yérim Seck tëjoon nañ ko lu tollook ñetti at ko ba ñaari na fay lu tollook million ba tax na mbir moomu ñu koy xoolaat mu xool ndax dañ koy bàyyi mu ñibbi wala dañ koy téywaat fi nga xam moo di bi di tos ko déggee mo di Thierno Ousmane si te ñu téye ko ci wàllu luubal xaalis moom ne nak ay mbiram ko faw mu la ay mbiram du mujje kon nag mbokk ak xarit ci doon seetaan wax waxaat du bari wax leeral ay wax la li leen bëgg a leeral nag mooy xibaar yi fës ci wàllu tàggat yaram. coow laa ngay wéy ci lambu tafatin bala Gaye yéen kaay bi ñu naan l'observateur kan la daal di fësal kii moo di Alé Niang Alé nekk nit koo xam ni communicateur traditionnel na xam dëkk bi nga xam moo di Refane xam seen cosaan mu ni dëkk la boo xam ni dëkk bu mystique la maanaam dëkk la dëkk la boo xam ci wàllu xar fa fuufa ak mbirum maa mën am nañ ci doole lool nee na nag kii nga xam moo di tafaatin mën naa def loo xam ne ni defu ko bu ñëpp njott ni nag bala Gaye ngay ñëw jaar ci kawam ndaxte jaaral na ci kaw Yékini waaye kii di tafaatin mën naa bëri moom ca mbetteel mën na si jóge ci wàllu coow loolu di wéy ci diggante Balla Gaye ak ki nga xam moo tafatine Tapha Tine nañu ci yéene kaay bi ñu naan le populaire lan lan daal di fësal moy entraîneur yi nga xam ñom ñoy tagat ñaari mbeul yi ki nga xam ni moy tàggat tafatine ba mu yëkëté ay cadeau mom Omez néna gis nga combat bi solo mantuwul kawo dina ci am maanaam dina ci am ko xam dinañ ko door mu daal di tok waye ki di Balla Gaye numéro 1 minute ñu duppee Balla Gaye Omar Sakho nee li wér woor moy tafatine bu dee limi wax ci mom dëgg la mu taxaw dëggal boppam li wér woor moy combat bi du yàgg ñu woy ba tey ci yéenekaay bii nu naan las kaay lan la ñu wax kii nga xamanteni moy doomu Double Less di magu Sa Thiès ñu koy duppee Triple Less ci képp ku lek avance am dina la wax xat balaa muy rees nee nañ jamono yi nak mi ngi ci un entraînement yo xamni ñaari patch la ko def benn bi moy bëccëg bi day def musculation ngon gi day dem fi nga xam moo di plage bi dal di daw dal di ciuki ciuki guddi gi mu dal di teud dal di nelaw ba yandor ba tax na ki di Balla Gaye nee jamono yi nak pare na pour le deux mu jakarlo ki nga xam moo di Tapha mu di combat bo xamni ku xef do gis jël bi ndax te pettu xal lay doon du nu tàggatoo ak yéen ca demoonu seeti yéen a kaay bii ñuy woowee sunu lamb fii la ku mu fësal moy manam le géant du Bawol mu nek ko xamni dafa meuna boxing ay lool ci fighting kooku mo di Tapha Tine dik nañ ci li nga xam ay ci sempi ki di Boy Sey da sempi dóor ko ci souf di yekini Junior da ko sempi dóor ko ci souf ci walu xex nak na ki nga xam Elton da da koy tamaate ba tak ci lip bamuy natch, nacc mu du koy dan waaye bi mujjé ki nga xamni mom modi Bombardier da ko fël-fël ko nak di tak ci koy ba tax digganteem ak ki nga xam mo di Balla le roi des arènes le 2 juin dina metti lol kon nak manara ngi ni nar yaa ngi nanu top combat bobu nak pour xam nak ko fan lay daal di mujjee ci ayu bés bi di ñew kon nak mbok ak xal ci ndon seetaan ci Sénégal TV dafa melni suñu revue de presse quotidienne agsi nañu ci pandaw ga waaye nag laata ma koy ndar yo kon nag gis ngeen ni jamono yi wax ji ci biir Sénégal benn la àdduna bi yépp Sénégal la ñuy déglu seen bët fan la ne mooy fële nga xam moo di stade Demba Diop bu ñu tëjee sàkku yi ci diggante Balla Gaye ak ki nga xam moo di Tapha nan la combat ba di demee wante ndekete yoo ndekete yoo combat bi dafa nekk combat boo xam ni ci wàllu xarfa fuufa ci wàllu mystique dafa am doole bi nga xamante ni kenn ku ci nekk sa cummikaay yaa ngi préparé ki nga xam moo di sa mbër ndekete yoo tambidu soo leen ko déggee nag mooy kiy tàggat tafatin ci wàllu mystique moom moo def accident boo xam ni otoom dafa këpp di def ay tonneau di def ay tonneau ba bakkanam nag mujj na mucc waaye dafa bëkk benn mbaam mbëkkaale benn xaj loolu nag ndekete yoo waa géejewaay ba ñu yëgee loolu parce que ba mu cëppeeloo ben ben moo ko jël benn taximan bo xam ne yo geedja way la dekk ci xaritu Balla gay la motax wa Balla gay ña ngay reetaan ñi ki di tambidu gisagul dara li teñ bi la yan bi ñewugul ku yor auto di def ay tonu di mbeuk ay mbam di mbëkk ay xar ne munoo ba sa mbeur dal di dan kii di Tambédou nag nee na da leen doon fontoo waaye Balla Gaye ne woon na du tudd turam parce que dafa nekk koo xam ni ñi ko gëm ñëpp dafa leen di nax rek loolu boo leen bëggee lu am ci nag lu leer dinañ di xool yéen bi nga xam moo di le populaire dinañ ko gën a faram-fàcce foofu kon nag suñu revue de presse quotidienne dafa mel ni fii la yem may jaajëfal ni ma àndaloon ci xarala bi ki nga xam moo di Youssef moom moo nekkoon ci li nga xam moo di filmage bi Marema Pen wàllu montage bi may jaajëfal ñi ni seetaan ci àdduna bi yëpp di ci jiital suma xarit suma doomu ndey Ndiok Malick Dieng promoteur bu mag ba nekk ca Londres fi nga xam moo di Angleterre sama turando bi nekk États-Unis New York Albany maa ngi lay nuyu di leen jaajëfal di leen wax ni revue de presse bi dina dellu si waat suba incha allah kon nag wasalaam.